salaamaaleykum équipe matinale dal leen nag revue de presse bés bi ñu dooree nag ak ki nga Baba Mal gannaaw ba mu invité wu France 24 la mu wax rek la nga ni la dundoon mooy film bi nga xam Black Panther te it consécration bi nga xamante ne te it di waajal 35e anniversaire am ci wàllum carrière am dignanak dal digg na ay concert yu bëri fële ca Paris ci ay yu lool lam ca teg rek ci mooy euh, li nga xamante ne nii def na ko mooy wéy ci kanamu Nelson Mandela nee na it nekkoon opportunité boo xamante ne nii mayoon nañ ko ko ngir mu mën a daal ibi yenn conscience yi te it may na ko it mu am symbole africain boo xamante ne nii daal mosu koo xalaat sax ne dina ko dund bés ndax jàpp na ni daal loolu du lu tuuti waaye di rendre hommage ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo jàpp ci wàllum carrière am ba mu agsi fii ba mën a nag di jouer ci ay scène internationale Thiès People ñu ñëw ci ki nga xam ni mooy Fou Malade moom nag jamono ji dafa toll ci justifié wu ci ay kàddu yoo xamante ne nii waxoon na ko ci benn interview ak waa Seneweb ba mu demee États-Unis sol fa njaxas moom dañ ko doon jaawale sax ak boroom ñaari tur yi ba tax ñenn ñi daal ci ay baay Fall daal di mer ba futu waaye daal mu leen di xamal rek ni liberté d'expression am na moom it dafa wax li nga xamante ne ni rek moo am te noonu la mel démb ak barki démb kon nag xanaa du tey la koy changé

waaja ñàkk bakkanam waaye fi mu ne ni daal dañu ko bàyyee gum waye mom mi di rappeur bi di MHD touram deug nak di Mohamed Silla mom. jamono ji dafa nek di jouer premier filmam te it film bi dal mo ngi tudd mon petit frère te rôle bañu ko si jox nak mom moy da doon jéem sauver rakam ba dal di faat papam mu nek lu metti lol ñu duggal ko ci ben kasso bo xamantene ni dal fa la accueillir xalé yi mu nek ci nak ben adolescent bo xamantene ne dañu ko tecc ci douleur mu wara affronter nak ben milieu milieu violent ci film bi nag mu ngi ci tudd Teddy moom mii nag muy xamle rek nii kontaan na lool ci film bi nga xamante ne nii dugal nañ ko si mu nekk nag troisième film boo xamante ne ni kii di Julien Abraham la